démb loo xam waxuma la Sénégal mais Afrique laa la wax maanaam journaux yu africain yeeg ñu bari daal bind nañu. Hmm. Euh, gën a fësal ndam li Diomaye am démb. wax na maanaam demam gi gis nañu ci ndam ñoom. maam ndamul lan. yow xamoo ndam. xam naa ndam mais ndam ndamul lan xam nga tey jii. waaw léegi boo ne ma lan yow xam nga ndam waaye. non xam lan la am daal. léegi jomaay dem na fa. Hmm. ak demam gi démb jural na ndam Afrique. waaw muy ban ndam la waaw léegi yow yaay lijjanti ba ndam la. ma xamoon ndam la. léegi man limal naa la fi wax naa la fii nii la am na euh, maanaam lu bees lu war am. Hmm. base fran euh, base française bi nga xam ne mi ngi foon ci trois cent militaires ne fi léegi dinañ ko yóbbu ba cent militaire hmm. wax nañ ci yu bëree bare bëri. kon kay. <laughs> ah benn point bi daal nga ma fi wax. ak Macron wax na ne il faut ñu xoolaat bu ñu nee ndam boo bu ma laaj doomu doomu wolof nga yow déggoo français déggoo déggoo arabe yow déggoo anglais déggoo ay wolof laa la wax nga naan man ndamu lan maa xam nga président Diomaye dem ah. dem dem France waaw seeti Macron ñu ni maam Afrique yëpp am réer la ndam la kii loolu loolu ndam waaw kon waa jàngatal loolu kay laa la jàngatloo président Diomaye dañ koo fal mu seeti réew yëpp waaw dem seeti France waxtaan ak ñoom waaw mais loolu kay lu ko war la bu fa jógee daa war a dem si réew yëpp la war a seeti demu fa comme ah, ah, kuy ku dem gane ji de non ni mu demee si réew yi léegi la demee si réew yooyu ni mu demee si réew Gambie gii noonu la demee France. ñoo yem ci moom képp. fu mu dem ab président la fa fekk. Mhm. mais lan moo tax ñu bëgg a réyal. France lan fa waxtaanee yitteelu la. lan fa waxtaanee base militaire bi dañ daan wax naa na jóge moom kay dafa war na jóge. waaw loolu kay laa la jàngat loo. mais déet jóge fi dañ ne nañ ko wàññi. waaw. mais dafa war na jóge dinaa amu fi njariñ. ñoom ñoo la waxoon loolu. waaw. ñoo la wax ne dafa jóge. waaw. ah bon waaw. ni fi jógee waaw. ah Assane loolu mosuma ko dégg. waaw mosuma ko dégg mos man. fan la. fii ci Sénégal. ku ko. ñoom ñëpp. ñoom ñan. moom daal ah, déedéet xaaral déedéet Assane. ñoom ñan déet waaw non non xam nga démb noonu nga def ba benn waaye suñu waajooj maa ngi koy nuyu Assane kii euh, kii kii jaay puus yi. nee na ma saa yi boo karkaralee soo ko laajalee dara danaa laaj ko commentaire yi. mais commentaire des fois lii ma commentaire xam nañ ko. commentaire yi seetaan xam nañ ni ñoom waxoon nañ base militaire yi. non non léegi kan moo ko waxoon fii kan yow loolu li mu yombee. ñoom ko wax. am na ku fii. waaw ni la fi jógee. la fi jógee fi njariñ. alaaj yow loolu dégg nga ko. xaaral la moom mooy. waaw la baax ah sa waxi bopp la. sama bopp la ñi may waxal ñi ma concerné ñi may wax mooy ñii seetaan te xam nañ ni wax dëgg. non man de li ma déggoon ci Sonko wax ko mooy li ñu fi am ci suuf maanaam li ñu leen jox dafa bari loolu daal laa fi dégg waaye nañ fi jóge waaw acca bismillah yeggale kon nag tey jii bu àggee na leen wax na wax ne ko sa base militaire ba fa nekk na fi jóge waaw bu fekkee ni nee na ko ah ñooñu kat duñ fa mën a jóge nangam nangam xanaa ñu wàññi leen mhm. ñu d'accord ci wàññi leen mhm. loolu lu baax la mais daal en tout cas nañ nañ xool daal loo xam nga président Macky Sall da nga dégg maanaam tukki na indaal na nangami milliard mhm. wala tukki na indi na nangami xaalis donte duñ xam fa koy dugal sax mais daana indi mais président Diomaye mii ñu ngi koy diglu ba mu ñëw ba xam lan la fa jëlee ak lan moo xew waaw loolu daal laay xaarandi jox El Hadj ne nii waxaguma dara damay xaar ba mu ñëw ba xam carrément lan la fa jëlee ak lan la signé ak yan accord la la am ak lan la dindi ak lan la dugal ak lan la yoon yu jariñ ak sërite bi ak ak ak ak waaye xamaguma ci dara moo tax du ma si mën a sori joxe El <laughs> jox ko. damaa amul honnêteté ni man li nga ma jox xaw ma ci dara joxal nga ni naa xaar ba jumaay ñëw. damay xaar ba mu ñëw. mais yow avant moo tukki lépp. bindal nañ la ko ci journaux yi nga dégg ay ah, son ah, nga dégg ko moom jomaay démb mu wax déggoo ko démb déedéet ko foo ne woon fii si Sénégal dégg ma ci dara xamul lu mu fa li nga teg nii dong xam ma ko sànn noonu mais waxuma kii jomaay la président jomaay wax na lan la discours am bi déglu woo ko déedéet ah non mënu maa ah, toog danga war na teg nag loolu démb démb teg nañ ko fii déedéet man dégguma fu ñu teg ab discours discours am sa France sa macro dégguma ko yow asal exemple wàllum vaccin léegi wàllum vaccin nga fi teg. léegi yow démb yow président bu. tukkee démb si wàllum vaccin nga fi teg léegi pour man balaa ngaa toogaat plateau war ngaa dem def ay gëstu xool déglu lu mu wax wala luñ bind. wala wala léegi su ma digloo loola ba pare ba xam. Hmm. far ma ñëw indi woo élément boobu nag nan laay def. nga ñëw ci. wala ñëwal déedéet ñëwal ci loolu. joxe hélas rek.